asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen waa daayiratu xidmatul xadim noo ngi leen muxaddimatul xidma noo ngi leen di nuy yéen ñëpp ginnaaw bu ñu jéggaloo suñ borom julli cent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, suñu taalibe suñu digg Sëriñ Tuubaa nuy nuy jël ay kàddu ci turu Sëriñ Amsatu Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad waaye ci turu Sëriñ Basiru Mbàkke mi ci njiitul ci turu xuddaamul xaddim di sant yàlla bu baax ci xéewal gi mënu fekke bañ tax ñu mën a ànd ak yéen ci liggéey wala fekke si ci ñu ñëw teew fi nag ci seen turu Cheikh am soto moom Cheikh Abdou Lahad ci turu xuddaamul xaddim sëñ bi wax ne sant nañu bu baax gërëm nañu bu baax rafetlu nañu liggéey bi bu baax wax dëgg yàlla kawe na sax nuñ ko suñ jot ci nuñ ko nuñ ko nuñ ko foogee woon bégg nañ bu baax ndax liggéeyal sëñ Tuubaa gu wér a wér lañ def te ci lañ nekk te wax dëgg yàlla tamit weddi gis bokk ca bit bu set bañ xëyee ba léegi at jot bit bu set ci lii lañ nekk rafetlu nañ liggéey bu baax sant nañ yàlla bu baax ci teewaay gi nga xam ne nii moom lañ suñ borom suturaale bañ fekkee ko waaye ci turu Cheikh Abdou Cheikh Cheikh Mouhamadul Basir mii ñu teewe ñu teewee ko mu ci njiitam tey ci turu Xadaamul Xadim gépp di rafetlu bu baax a baax a baax a baax rek ndax daanaka moom sant daal du weesu sant te jaajëf tamit du weesu jaajëf te tamit comme li ñuy wax rek ba sëñ Tuubaa di wax ne wa axrina yaa rabbana bil xidma lil muslimin abadan wa rahma lii rek a taxoon lii rek a taxoon te sallallahu alayhi wa sallam dafa daan wax ne xayru naasi xaadimuhum ki gën ci nit ñi mooy ki leen di nangoo lii nag rawatina nag bu ñu jëmee ci defal ko koo xam ne Serigne Touba la ndax Serigne Touba moom li ñuy wax rek fab na léppam jox sallallahu alayhi wa sallam loolu mu waxoon ne wa baqaaya nabiya sara ñun tamit suñu jéem koo fay mooy sunu lépp suñu des fi lu mu gàtt gàtt lu mu gudd gudd ñu fab lépp jox ko Serigne Touba mu doon mbégteem Serigne bi lii nag defe naa dara jiitu ko ci woor nit ñu woor ba ngoon nga jox leen ñu ñu ñu ñu ñu xéewlu bu baax la ko jiitu nga wax leen ab conférence boo xam ne ni toir kal kenn ko ne mën caa jàng kenn ko ne mën am leçon boo yóbbu sa kër wax dëgg yàlla loolu dong doyoon na sëkk rawati nañu nag ñoo xam ne sax gëj nañoo gisante fii lañ gisantewaat gën a defaraan mbokk gi bu baax gën sant yàlla bu baax gën leen a sant bu baax liggéeyal sëñ Tuubaa nag comme niñ koy waxee rek moom du du du du du du du du dara du sens la rek boo xam ne sëñ Tuubaa mooy tànn ñu muy liggéeyloo kon nag bu ngeen ci bokkee kenn ku ne xam ne yow mbir mii sa mbir yaa ci jariñu mbirum sëriñ Tuubaa moom am na fu muy tàmbalee waaye amut fu muy yem Cheikh Mouhamad Fadel Mbacke moom Xaadimu Rasuul dégg naa bañ ko laajee ne ko kañ la ba kañ la murit am mu ne ba baax amee fu murit yem mu ne fu mu ne fu baax yem rek fa la murit yem kon liggéeyal Serigne Touba sunu lépp Serigne Touba nag la mu daan wax ne liggéeyal jaamu yàlla ci jaami yàlla yi lii bokk na ci. Cheikh Abdoulaye Mbacke tamit daf daan wax ne ku liggéeyal Serigne Touba murid yi la war a fay waaye ku liggéeyal murid yi Serigne Touba lay fayal boppam te lii nag dara jiitu ci rek comme nañ ko waxee ca tàmbale ba liggéeyal Serigne Touba. Serigne Touba nag comme li ñuy wax rek sens la boo xam ne nii li mu wax ne dal la an lay alxulama wala awliya képp ku cër ku nekk suñ borom suñ borom tegtal na la ngay Serigne Touba kon nag ñun lii ci la bokk. sëñ Touba daal suñ borom tegtal na ko mu jàpp noonu jàpp ko ñu fas yéene tamit suñu lépp di menal xaddimi rek ilal ilal xaddimi xuddaam ci loolu ci loolu rek nga a dox kàddu yi nag daf ñoo bett lool ndax sëñ Basiru mi moo ko waroon a jël waaye mu ñaan ñu rek nañ ko jël kon nag lépp lu ci manqué rek ci noonu la waaye lépp lu ci mat ci ñoom la ci moom ak Cheikh Abdou Cheikh Amsa mu koy ak délégation bu kii bi ndax kii taxaw doomi sëñ Amsatu la kon moom yabal na yabal na boppam yabal na yabal na boppam yabal doomam yabal ñëppam kon nag lu ci manqué ci noonu la waaye lu ci lu ci mat rek ci sëriñ bi la wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu xam naa jox si abbas rek bu fekkee ci ne li ci manqué bu fekkee am na lu ñu fàtte bu ko defee mu dimbaluñ ci rek mottali ñu ko waaw <coughs> euh, di nuyu ñëpp di sant ñépp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah tey ñoo ngi fii ci barab bu màgg barab bu am solo muy jumaa cheikhul xaddiim jumaa cheikhul xaddiim fekk fi daaira bi nga xamee ni mooy muxaddimatul xidma ñépp ràññee leen ci seenub liggéey bu am solo ci taxawu lépp loo xamee ne ndonol sëriñ bi la eh, ñu tew fi nag ci tuuru sëriñ Hamsatu Mbakke mi nga xamee ni moom mooy responsable moral daayira bi nga xamee ni moo tudd Xuddaamul Xaddiim ñu ñëw fi eh, àndandoo ak ñoom ci waxtaan wu am solo woo xamee ni sëriñ bu Busa Xasan moo ko doon def ci alshabaabu wa dawruhum fi l islaahi al ijtimaayi muy waxtaan wu am solo woo xamee ni ku ne waroon na ko fekke waaye loolu lépp itam ci ndimbalal daayira bu màgg bu am solo bii nga xamee ne mooy muxaddamatul xidma ñoom nag ñuy invité ñu mel ni dawaayir yi nga xamee ni ñoo bokk ak ñoom euh, làcc wi tool bi ci waa Kër Xadim nga xamee ni jàpp na ni mboolem dawaayir yi ci nekk yëpp kenn ku nekk dafa am côté boo tàmbalee rek di bay waaye jëm si ci digg bi lépp di Serigne Touba ñoom nag ñu jóg ab taxawaay bu am solo ngir wan nit ñi ne leen mboolem dawaayir yëpp mboolem kuréel yi ngay dégg ci Touba yëpp benn kuréel bi la ñëpp ñoo bokk pas-pas ñoo bokk bëgg-bëgg waaye réeroo woon ñëpp liggéey Cheikhul Khadim rek la. loolu nag di lu am solo loo xamee ni mu xaddimatul xidma mi ngi koy def euh, lii firnde la ci loolu moo tax euh, Serigne Hamsatou Mbacké wax mbooleem euh, ci membre yi xuddaamul xadim ku ca mën a dem. Eh, nañ dem teewle leen ànd ak ñoom surtout itam ci liggéey bu am solo bi nga xamee ni ñaata at ñi ngi koy def ñaata la ñuy financé par jour lu baree bari lu am solo ba tax na kenn ku nekk war naa bàyyiwaat xel bu baax a baax ci daayira bi nga xamee ni mooy mu Muxaddamatul Xidma bàyyi leen xel bu baax a baax ndax lii itam ay loxo kese defu ko ay jàmbaar lañ yoo xamee ni saa su ne ñaata la ñuy financé huit cent mille un million kenn xamul nu mu toll ak li nga xamee ni moom la ñu dogal tey jii dem naa ba seet lépp visité ko waaye itam daayira bu am solo la boo xamee ni mat nay bàyyi xel maa ngi ko wax ni sàng euh, ci bi ma ànd ak sëñ Abdou ne ko euh, lii kat dañ ko waroon a firndeel génne ko ba ñëpp xam ko ndax am na ay taalibe am na ay bon volontaire yoo xamee ni bon volontaire yoo xamee ni bëgg nañoo taxaw waaye nag dañoo gisu dañoo xamut kon lii nañ ko siiwal lu baax Euh, ci bu fekkee am na ci benn daayira bu koy taxawal te mooy Muxaddamatul Xidma li war nañ ko siiwal ba ñëpp xam ni daayira bii kat daayira bu am solo boo xamee ni nii muy taxawoo Touba nii muy taxawoo Jumaay Touba nii muy taxawoo ci làcc wi di Sëriñ euh, euh, amul dara lu ci manqué lépp mat na looloo tax nag daayira Xuddaamul Xaddiim ñëwoon ànd ak ñoom. ci ab sàkk boo xam sàkk woon nañ ko ñu ñëw ànd ak ñoom ci liggéey boobu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéglu ci kàddu gi lépp loo xamee ab jamañ la si dikk nañ nag ci eh, ndigalu sëñ Hamsatu Mbakke waaye ci ndigalul eh, Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbakke di ñaan sun borom yàggal ko fi lool tax man ko wéet incha allah ci barke Cheikh Khadim ñoo ngi jéglu ci wax ji lépp loo xamee ni ab jamañ la si waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu